salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi seetaan ci Darmanko TV ñëw leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen baalu àq ci koor gi di leen baal di ñaan suñu borom boole ñu jéggal ñu fekk ko ay déwéni déwén kon nag tey ñu ñëwaat seen émission bi di wolof cax wolof tey nag ñu andi ñaari cax yoo xam ne benn boo ci tekki rek am nga cinq mille waaye boo tekkee ñaar yëpp rek da ngay daal di am dix mille dix yi nag ni nga koy jotee mooy da koy tekk ci commentaire yi ndax ki nga xam ne moom mooy joxe dix mille wala cinq mille boobu maanaam ci commentaire yi lay xool kan moo gañe kon boo ko tontoo ci comment ku ko jëkk tontu ci commentaire yi rek day daal di dugal numéro ñu daal ko koy vérifier incha allah kon nag ñu daal di ñëw wax leen cax yi nan la demee cax numéro un bi mooy dafa am benn mala boo xam ne si pour nga jaar ciw turam. dafa am benn mala boo xam ne pour nga jaar ci aw turam danga woo turu ñaari mala maanaam soog a tudd turam te turu ñaari mala yooyu nga woo benn mala bi mën nañ ci woowaat beneen moroomu malaam te ci turu ñaari mala yooyu benn mala bi bi ngay jëkk a wax mën nga ci woo beneen moroomu malaam kon nag loolu la laaj maanaam benn mala la boo xam ne boo ko bëggee woo dangay jaar ci turu ñaari mala waaye turu ñaari mala yooyu nag turu mala bu njëkk bi mën nga cee woowaat benn mala kon loolu ñoo leen koy e, bàyyee ak laaj boobu ak cax boobu ku ko ci tekk rek ci commentaire yi e, soo tekkee benn bi am nga cinq mille boo tekkee ñaari am nga dix mille kon ñu ñëw ci deuxième bi waa ñu jàll ci deuxième question bi deuxième question bi deuxième cax bi wala deuxième question bi mooy maanaam eh, ab jamono ngi nii ci biir nawet jamono boo xam ne buñ fa tolloo na muy tudd maanaam na muy tudd boo ko bëggee tudd da tudd ñaari baat ñaari baat yi benn bi mooy képp kuy doomu aadama rek dana ko def bu ko deful rek dafa am jafe-jafe waaye bu am nekkee su amul benn problème rek dana ko def ñaareel benn baat bi ci des mooy que jullit yépp obligatoire la pour jullit def nañ ko sopp nañ ko ci am jullit loolu noonu soo boole ñaar yooyu da ngay ci tur wa xam ma nag ndax ni ma ko waxee leer na wala leerul kon xam naa ñu baamtuwaat ko ci biir nawet am na jamono joo xam ne buñ fa tolloo na muy tudd jamono jooju na muy tudd soo ko bëggee tudd maanaam dangay wax loo xam ne si doomu aadama yépp danañ ko def ku ko deful rek dafa am problème waaye doomu aadama yépp dañ ko def nga jëlaat beneen loo xam ne si maanaam jullit yépp sopp nañ ko ci jullit yi maanaam war-war la daal ci jullit bu nekk mu def ko soo boole ñaari baat yooyu da ngay daal di tudd jamono jooju nu tudd cib nawet kon nag ñoo ngi leen bàyyi ñaar laaj yi képp ku ko tontu rek nga dugal sa numéro téléphone wala dana la laaj sa numéro téléphone defal la wéef bu fekkee benn bi nga tontu ñu defal la cinq mille bu fekkee ñaar yi nga tontu ñu defal dix mille kon nag ñoo ngi bàyyi ci ci xalaat yi kenn ku nekk nag na xalaat nu mu ko nu mu ko kii rek bu fekkee ne laaj bi dafa des buñ ko bindee ci commentaire yi dañ ko gën a leeral incha allah kon nag sama laaj bi ku ko tontu cinq mille ngi nii cinq mille bii maa ko teg wala dix mille yi lépp loo ci tànn bu fekkee benn bi am nga cinq mille bu fekkee ñaari am nga dix kon nag mi ngi nii jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di tàggu ba beneen incha allah jërë ngeen jëf